man maa ngi tudd Serif Diallo. Serif Diallo tey lan mooy seen jafe-jafe wàllum accident yi. maanaam fii daal yàgg nañu jooytu doo daan normalement autorité yi ñi koy war a dox ñu ngi koy dox mais amaguñu loolooy affaire mais nag comme ñu ngi koy topp incha allah mun nañu am. incha allah ñu ngi sécurité parfois. waaw waaw loolu loolu am na fii loolu am na vitesse bi parfois seen xale yi. vitesse yi bari trop su élèves yi di wàcc. ñoom xamuñu def ndànk loolu moo tax fii normalement war nañ ko defee doo daan waaw loolu daal ñu ngi koy ñaani gouvernement bi ñu ciy taxaw autorité yi ñu ngi koy ñaani ñu defal ñu ko loolu fii mën a mooy tax mu baax waaye su dul loolu affaire bi dafay bari waaw loolu la wasalaam.